moo tax def ñu ko bidratu samar bidratu talab lañ ko def sans dépend ci fi koy def waaw moo tax albaladu tayib nag yaxruju nabatuhu bi idni rabbi waaye walladi xabusa la yuxrij illa nakida waaw pas-pas jëmmi pas-pas bi amul solo mais ki yenu kan la est ce que ku ñu mën compter ci moom la wala déet waaw c'est très important moo pour nit ki xam bopam ci dimension bobu mom la yonent bi di wax ni yalla bu deme ba ne li yudhiba ankum rijsa al bayt da bobu sama wa neeg rek lay waxal sama famille bop pour nuñu wara purifier sen bop ba yegg ci dimension bu len leen yalla di ca sonn bobu sonn pour sama neegu bop koku sama neegu bop sama wa kër ko mais man bokuma ci ahlul bayt mom yonent bi muni bokuma ci ahlul bayt ci ahlul quran la bok kon nak bu fekke ni lu yudhib ankum ar rijsa ahlal bayt wa yutahhirukum tadhira fa kayfa bi ahli alquran moo tax mu ni bokku ci ahlul quran digg na ñak ñàkk fayda ci luñu len wara xame moy ñu jàng al-qur'an jàng bo correct حفظا واحتراما بالحروف والحركات yëpp ñu respecté ko mooy bi nga xam ni moom la ñuy nampé xoolal loolu mu ne bu ñu ci jógee nag taxalluq bi dugg ci wàllu alquran waaw bu ñu paree ci taxalluq bi taxaquq bi dugg جوالو القرآن وبابا نغ يطهركم تطهيرا وا. وا. يعني كوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي يلا وحني بو بو جام نياني أه، مو خم تشوف كو جار تشي ولا فوم كو من جار يلا دو تنكملو C'est ce nit ñaan ba nopi ñaan ñaan ga ni dafa nuñ koy interpréter parce que nit ñi dañuy ñaan te duñu xam taqdir parce que Malakout fa la département ba d'accord vignette yi fa la mu soog a dem ci alxadara al ilahiya mais bu fa duggee beneen département bu ñu tudd xarakatu taqdir fa la ñuy recevoir ñaan yi mu ni am na ñaan ñu nga xam ni la ca borom bëgg amul àdduna alaxira rek la ko mën amee moo tax bu ko ñaanee it yàlla nangu na ñaan gi mais jot ga fekk waxtu wa jotul du ca man jot moo tax léeg-léeg sax fekk dafa am koor ku doon wax naan man de dama sonn ci affaire sëy ñaan naa yàlla nag mu mel may ma jabar bu mel nii bu mel nii bu mel nii bu mel nii waaye ba léegi jabar bi ñëwul yenent bi ne ko jabar bi nga bëgg xóorul ayn dong nga ko mel waaw <laughs> te xóorul ayn amul fii fële la am waaw waaw waaw waaw et puis mën nga kon nag muñal ba aljanna moo tax gis nga lu ne nga xam lan la Abdul Qadir al Jaylani dafa am ñu ko opposé biñ ko opposé mu géré ko

laata muy wax rek am ci njabootam yi fa toog ñu xamul seen bopp jëkkantu jël kàddu dégete complice lañu ci ñi ñëw daa di jékki-jékki rekk ne ko wayin janaxu li selmi fajnax laha nga yàlla kat wax na ci alxuraan ni am na ku nga xam ni bu juboo di yow dem ba bëgg a juboo yow nangul ko juboo ga Abdul xaw na bëgg sax gëdd ko waaye mu ni tekk tekk ba ci yàgg mu xool ñuy doon réconcilier si ni leen duxulukum ila hada saf ajnaxu li selmi lakum mu ne ko seen farata nekkul ci ñëw réconcilier ak man seen farataa ngi ci dugg leen dugg leen ci rang bi waaw mu ne ko ndax dugg ci rang bi mooy seen jàmm te moom laa leen yéene donc yi ci di yëpp protocole la waaw waaw xale bi wax na dëgg de dugg leen ci biir rang bi parce que seen jàmm mooy ngeen dugg ci biir rang bi moo tey dégg naa bis góor gi wax koo kër jëmb mu ne am na ku nga xam ni waxuma la bokk waaye fekk sax war na ko fekk boobu dafa am ñu waroon a teew te teewuñu waaw lu ne nii rek mu ne maa na diw waaw mu ne ko ah yaakaar naa léegi mu war a yegg si de te fekk maa gën a xam ni du ñëw ana lu ne nii mu toog ci yàgg mu ne Moustapha ana ah di ne woon na ma dina ñëw ma fekk dem damay rafetal rek waaw xam naa ni du ñëw ba ci bu ñetteel bi ma wax mu ree rek la wax wax bu solo ah, ma ne ko mu sëf ah, ma ne man Ndakaaru baaxul ci ku ñu parewul ci yow lay ndeysaan wax ko xaal bu nga ne mu sëf ma ne ko ah Ndakaaru baaxul ci parewul ci yow keroog la dégg mu ni ma bu ñu ñibbee Dakar ma ni ko mu ne ma àllarba bii di ñëw ma ni ko mu ne ma yegg Alaaji Njaase na ngeen ma wuy si waaw Alaaji ndeysaan keroog ñu ñëw wuy si ko duma ko fàtte mukk veyu koor la et c'était la première fois mu recevoir ñu heure boobu te mooy 17 heures waaw téye ñu fa ba 21 heures waaw waaw ndeysaan mais waxtaan wa sore na ba ëpp waaw waaw sore na ba ëpp fa tabarakallahu ba tax na ñu góorgóorlu rek fa ayna tadhabuun ayna tadhabuun ah gis nga soxna si toog nii moom xam na ni sañuma jay ko xam na ko waaye moom it sañuma jay wallaay te li ñu ne ni ñu ko gëme kenn xamul wu sonn waaw ataan na kon nag dalal leen seen xel rek góor gi ay saan ay maa ngi ko gis bërki biig ndeysaan mu ngi yor benn verre bu ñu def limonade ak sirop menthe ndeysaan maa ngi gis ni limonade bi nekk ci kaw ak ni sirop menthe bi nekk ci suuf mu ne ma mu sëf ma ni ko la bay mu ne ma wutal ma kudd yooyu ñuy yëngale ci restaurant yi <laughs> ndax mënu naan verre bi te yëngaluma ko waaw nga wutal ma kudd bi ma ma yëngal ko ma may dugg dëkk bi nag pour ndax comme boobu la wax du ma koy indil n'importe quoi waaw waaw fu ne ma dugg fa ba ci benn boutique laa ko fekk ñu di ma nangam lañ koy jaaye ma ni boy woo waaw mu cher loolu ma jënd ko ñëw indil ko ko mu ree waaw waaw ma xam ni ishaara <laughs> wallaay ndeysaan cheet tëg tëg ndeysaan est wallaay ndeysaan lu tax na kon nag de vacances Bangkok. en une université bi comme du coup de sel ñu professeur et nous des coups de maître ليسان ليسان وا والله ليسان ndeysaan yàlla yàlla baax na yàlla baax na allah allahuma amin incha allah amin jërëjëf amin amin incha allah amin inşallah allah amin incha allah amin inşallah allah amin inşallah allah yàlla baax na ndeysaan يلو بانا ان شاء الله الين امين امين ان شاء الله امين ان شاء الله امين ان شاء الله امين ان شاء الله ليسان يرجف اه فاين تذهبون سنتي يلا رك ام غا والمرء مع من احب نيت كو نيك كيغا سوب رك ياك موم بفيب دما كوي تونتي كاتيم بيلي ma ne ci li yonent bi doon wax di laaj Bilal waaw Bilal yow foo jaar mu ni ko ci lu mel nan mu ni ko bi may visité yi ma doon visité ci mi'raj bi damay gis fu ma jëm rek ma yëg sa tànk yi di di dox foofu waaw di ma jiitu may jaaxle nag noo def noo def ba ba mu ni ko sopp la rek waaw mu ni ko sopp la rek wala mar uma aman ahab ndeysaan waaye daf may dal leeg ci kàttin bi le matna fukki at legi ndaysan ma genti di di julli ca masjid al aqsa bi may julli bay sëlmal nak di def ni ci nday jor bi ma gis katim tok ci sama wet waaw waaw ndeysaan wal mar'u ma'a man ahab ndeysaan ndeysaan

ma jóge Dakar dem Paris 48 heures ñu yóbbu ma ci benn appartement bu nekk ci kaw montagne tiim Paris ma ni bii di la soxna Zeyna bu doon wax ma dugg si fekk katim toog waaw waaw waaw waaw ma ne wal mar uma aman ahab wallaay ndeysaan waaw tax na tabarkal la cofeel rëy na waaw tabaarakallahu dañ leen koy yërëme yéen ñëpp nag ndeysaan ndax ku ci nekk ak sa xob ak sa la ko yenu waaw bu leen di toog mukk ba jàpp ni dara diis na ci ñun waaw ndax na loo xam ne yàlla du la ko deful mukk nag dara di diisati ci yow waaw bu dul dara toogaayu soxna ki ne bii bu woyafalul lépp ñu bàyyi hmm? tabaarakallahu ba na rek moom ku yebu di ñaan ndax ku wax lépp sax cat baaxul waaw ah, lay ndeysaan cat baaxul waaye ah, tax ne kon nag yal yàlla mottali yal yàlla dolli sutura yal na yàlla def tawfiq tabaarakallahu yal na ko yàlla sédd ci leeru maam yi ak ci seen cër ak ci seen barke lu mu séddaate ñeneen te ñun ñëpp ñu dugg ci biir ah fa tabaarakallahu examen ñëw na de yàlla baax na ndeysaan wallaay ndeysaan ndeysaan parce que ah <laughs> pourtant waxoon naa lu gën gaaw d'habitude liñ daan def mais dafa ñëwagul yow daan wax ñu defar siwo bi rek indi ko nga defee ñu defar ko rek ku ñëw ci institut bi ñu jox la waaw. ndeysaan ah ndeysaan dañoo am sunu benn mbokk mu Cerchit bu nekkoon Italie ndeysaan mu tudd Modou Lo nekkoon Italie ndeysaan ba yàlla dogal mu feebar fa yàlla dogal mu fa faatu ndeysaan ñoo indi koor bi ñu ngi ko war a rob suba ah xanaa kon ñoom Maodo bu ñu demee rek ñu féete ñu foofu te taxawu ko incha allah waaw ah, ndeysaan eh yàlla binde noonu àdduna waaw yàlla na ko yàlla xare aljanna te yàlla may ko mu yéeg ci barzaxu sëriñ Babacar Sy waaw ah, ndeysaan mm-hmm. Mm-hmm. Ah, xam na bu ñu jógee rek ñu ñaan waaw ah, dañuy wax benn njaboot bu nga xam ni dafa réer keroog ba ñu defee ca ziyaaru Tiwaawan bu tabaski ba ba léegi dafa réer kenn gisu ko xanaa ñu ñaan rek ah, <laughs> ci la bokk yow ci la bokk ndeysaan <laughs> ndeysaan léeg-léeg nga ni nit dafa réer sax fekk na waaw ñu ko jël si rek pour quelque temps waaw bu ñu paree delloo ah. ndaje yi lu nekk ci am <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ah waaw kon soo ne kin ne nga ñaan bokk dégg nga ñaanal ci sa biggu waa kër yile la <laughs> kon ñu tàllal bokk ñun ñëpp ñu ñaan bokk incha allah <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت